ne mbokk yi ñu ànd ceeg Leewtoo production muy dox ci diggante Tidiane Faye le professeur de l'arène ak Ndandi Fall le technicien de Grand Yoff. Euh, le professeur nag journaliste ñoo ko tuddee. ah combat la nag. combat ñaari la làmb bërikat la. bii mooy sama trente man kenn teggi lu ma yor damaa xare. ku ma lebal boor dama koy fay. làmb léegi sama bakkan gi laa ci teg. Ndandi maa ngi yow droit lañ. boo bëggee combat bi day gaaw. Ah. xanaa nga bañ a bëgg. dañ koy jël lu ñu moom force. dama ne Tidiane na ma xaar maa ngi def lépp maay le 6 janvier 2024 fii ci arène nationale Ndandi Fall ne daañu bëree daañu xeex Tidiane Faye ne su bëggee sax ñu bëre ba naaw ci kaw air bi Ndandi Fall di jógee Grand Yoff Zarko andi ko Tidiane di jógee Lansar Siteu ànd ak tarkindaa yi laa ilaaha illallaah xam ne te ni ñoo bële ba ci làmb Modou le fait que may wax ni dafa mën a bëree dafa a loolu kenn waxaale ko parce champion la mais ñun dañ xam fi mu jógee ndox fu bëree ne dañ ko jàng te incha allah comme ni rek incha allah ma wéyee ci bëree ma jundoo ko incha allah. Modou Lo dugg na six fois Pikine lundi mardi mercredi vendredi samedi damay wax la ma wax damay wax la ñu waxoon rek bu fekkee dafa am lu ci soppeekoon ci soppi ko fii biñ tooxee. Modou Lo dafa ku def lundi ba samedi dimanche la dese dimanche bi ci moom nga koy amee ndax wax jooju ba tey Modou yaa ngi koy dëggal ba léegi. loolu laa gëm incha allah li ñu ñaan ak taal fekkee gëm naa ne incha allah le premier dinaa ko daal jël sa jàpp daan programme incha allah. mu ne le premier dina la daan jël bu leer nañ doxal waaw loolu loolu waxu boppam la rek loolu waxam la waxu boppam la. mais incha allah ñun liñ gëm war naa la kon te ñu ngi si ñu ngi teg suñu tànk bu baax ñu ngi ciy liggéey ci soobee yàlla incha allah. mu indee xeex. est ce que dina la arrangé. waaw ñoom la mu ñaari yore rek xeex ak bëri incha allah. ak dégloo ak dégloo ak dégloo. non euh, président. Ah, ah ah non di nga jël kàddu. non président. il faut ñu raisonner nit ñi il faut ñu raisonner. non président. yéen a ñoom signé wuñu ñaari mbër yi ñoo signé ñun après ñun ñooy ñun ñooy payer les cartes les les pots cassés parce que suuf dara xewee ñun la ñuy sanctionné ñun ak suñu mbër ñi fi nekk ñëw ñu fi pour signer contrat dañoo ñëw pour assister dañu bàyyi ñaari mbër ñu ko ne seen wax ñu xool raisonné jërëjëf jërëjëf président. leen doon jërëjëf jërëjëf président gars yi. jërëjëf président gars yi s'il vous plaît parce que euh, tey Cheikh Cheikh tey dama bëgg ñu waxtaan. parce que euh, Abdou Lahad combat bii nga xam ne bii moom la ñu jëm le premier janvier dafa nekk combat boo xam ne dafa doy waar parce que moom loo waxuma loolu mooy am de bu fekkee ne dafa renverser ki nga xamante ne nii mooy mooy ñaar. dina am ndam loo xam ne ndam lu rëy a rëy lay doon parce que dafay marqué histoire parce que fi mu jaar ak moo tax te nee génnee ko moom dama jël sama chaise teg ko biir Pikine mais bu Boy Niang renversé tendance bi daan ki nga xamante ne nii mooy Modou Lo dina def loo xam ne pour la première fois ci histoire lamb mbër moo su ko def parce que bu njëkk lamb dafa am fugle Boy Niang dafa ñëw pour fourler maanaam dafa ñëw pour jël revanche donc muy événement boo xam ne bu ko ci yàlla mayee ndam dina am ndam bu réeré parce que génération 2005 2006 mënoo ci génni ñaari mbër muy Balla Gaye ak Modou Lô boo daanee Balla Gaye 1er janvier 2023 1er janvier 2024 nga ñëw renversé waat ki nga xamante ne nii mooy Modou Lô loolu waxuma ne mooy am loolu Cheikh bu ko Boy Niang defee dina dugg ci histoire moo tax ma ne combat bi Cheikh. dafa am enjeu ba enjeu bi dafa dépassé moo tax Gaston Production. très honnêtement man dama xamul ñoom en réalité lan mooy seen secret parce que ñoom dañuy dëgg la. boo ñaaw pression yi dafa bëri pression bi bëri na ci 100 pour 100 Pikine pression bi bëri na ci Modou Lo dugg Pikine duggaat Pikine duggaat Pikine nga war a jàkkaarloo moom troisième pression bi mooy roi des Boy Niang pare na ci loolu lépp lépp lépp physiquement mentalement est-ce que na Boy Niang est-ce que pare nga loolu lépp. waaw seet xam nga tamit benn instant dañuy jaawale pression ak motivation xam nga ñaari mbooloo yoo xam ne bokkul même bu fekkee nga yóbbu sa rakk nga war a bëri pression da ngay motiver rek te tam nga yokk jom yokk fu la yokk fayda comme naan loolu la quoi amul pression amul màgg nañ ci làmb xam nañ ko yàgg nañ ko gis muy bëre mooy loolu amul benn pression incha allah jàmm moo am ak salaam ak waaj ñëw maa moom na tey incha allah. Modou Lo bis sa diggante gi nga xam ne moom moo di Boy Niang loolu la lay indi. waaw li ma laa indi rek xam nga mooy mu wow kooku ñëw taxaw moom la ñu am incha incha allah loolu nag léegi neex na jaay bu soobee yàlla. tey làmb ji bu nekkoon léegi nii fi mu toll nii bu arbitre sifflé woon léegi moom loo pare na. non yàgg na pare naa ko yàgg. Euh. waxatu ko kenn waxatu ko pare naa ko yàgg. boo ñaax bu arbitre sifflé woon léegi pare nga. Ah, man maay pare. man. Euh. maay pare. pare nga nii nii nii nii. toujours pare nga ñuy toog toujours. mais mais mais est-ce que bu bu ngeen bu ngeen ñu mën a beneen jàkkaarloo fii ba xoolaat leen yéen ñaar. loolu dina ma neex trop. ah moo ko tere neex. ay ca Modou Lo dikk rek ma xool ngeen may ko beneen jàkkaarloo ma xool ñaari jàkkaarloo C'est bon jërëjëf assistance bi production muy dox ci diggante Tidiane Faye le professeur de l'arène ak Ndandi Fall le technicien de Grand Yoff. le professeur ko tuddee. ah combat amateur la nag. combat ñaari mbërëntaan la làmb bërekat la. bii mooy sama 32e combat. man kenn teggilu ma yoon damaa xare. ku ma lebal boor dama koy fay. làmb léegi sama bakkan gi laa ci teg. Ndandi maa ngi yow droit lañ. boo bëggee combat bi day gaaw. Ah. xanaa nga bañ a bëgg. dañ koy jël lu ñu moom force. dama ne Tidiane na ma xaar maa def lépp maay xale. le 6 janvier 2024 fii ci arène nationale Ndandi Fall ne ma daañu bëree daañu xeex Tidiane Faye ne ma su bëggee sax ñu bëre ba naaw ci kaw air bi Ndandi Fall di jógee Grand Yoff Zarko andi ko Tidiane di jógee Lansar Siteu ànd ak tarkindaa yi. la ilaha illallah